topp ci Leewtoo TV ñi ngi amati mbégte bu baax a baax ak contentement di jaajafal suñu mbokk internet yépp yi nga xamante ne bii ñi ngi ñuy topp fii ci Leewtoo TV di la ñaanal jàmm ak salaam tey nag ñu am benn invité ba nga xamante ni bii euh, nekkatul ku ñuy présenté ci ci Sénégal euh, dañ koy bàyyi mu présenté wu su paree ñu waxtaan ak moom ci làmb ndax xam na ne euh, ku bëgg làmb la tey day topp làmb. waaw donc maa ngi lay bu baax. franchement di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñooy seetaan Leewtoo franchement di kontaan tamit ci invitation bi. Mhm. waaw di di nuyu ñëpp waa Akhlu Làmb nag. Mhm. waaw parce que xam nga man dama nekk di yëngu ci milieu série ak film yi mais. gaa yi xamuñu ne man amateur làmb bu mag laa. Ah, d' abord présentation bi xam naa gaa yu bëri sax xam nan la. waaw mi ngi noonu waaw Pod la ñu gën ma xam si euh, Pod Pa Omar Diop. Mhm. pot bu série Pod et Marichou donc euh, mi ngi noonu quoi. waaw maa ngi nii daal nekk amateur làmb bu mag nag bëgg làmb tamit. di ko dund. nekk amateuru làmb bëgg làmb làmb ni ñu koy waxee nekk suñu aada nekk suñu cosaan mën naa ne sénégalais boo gis am na la nga xamante ne bii euh, am am na lu muy sentir ci làmb yow nag nga nekk mm-hmm. amateuru làmb. Mm-hmm. ban làmb nga mës a seetaan ba léegi mu des ci sa xel. waaw laaj nga ma nag euh, question bu bu am solo komba bi nga xamante ne daal. moo gën a des ci sama xel. Mhm. franchement Balla Gaye 2 ak Yékini. Balla Gaye 2 ak Yékini lan moo tax. en fait combat boobu bon man bon Balla Gaye sax du woon sama mbër Yékini tamit du woon sama mbër mais combat boobu dafa amoon benn engouement boo xamante ne maanaam tey on se disait kan moo fi kan moo fi war a mën jële Yékini kan mooy daan Yékini loolu moo doon question bi. Mhm. Balla ci ay. ci ay ci ay ci ay conférence de presse am on sentait benn jeune boo xamante ne dafa gëm ni dafay ñëw. dafa engagé wu daan Yékini. Mhm. ma ne gëm-gëm bii nii kii fan la ko war a mën a teg. Mhm. te booy bu ndaw la. Mhm. donc lu ma gën a yéem aussi ci durant combat bi yëpp lu muy bëri yëpp il était serein. nag moom image yi soo ko gisaatee ba tey si biir songoo bi ci biir rofa bi yooyu am na benn instant mi ngi téye Yékini di tenter action mu ci biir action bi Balla mi ngi reetaan loolu. bokk na làmb ci bi ma gën a marqué ci histoire u làmb et je pense que c'était un tournant et foofu la Balla Gaye wanee carrément ne ponkal la quoi. foofu la Balla Gaye wanee ni ponkal la nga nekk amateur u làmb wax nga ko mais tamit combat boobu ni nga ko waxee dañu gisoon coow lu bari avant yëkk Yékini wax fi lu nekk Balla Gaye tamit nekk mbërëm a nga xamante ne bii li muy wax ci signature de contrat wala li muy wax ci point de presse yi bu arbitre soufflé loolu lay def ma bëggoon ci loolu nga wax ma kan mooy sa yàlla dafa def Eumeu Sène mooy sama mbër. waaw hmm. te yàlla te mosuma ko gis ba tey. ah mais Eumeu Sène mooy sama mbër. mais franchement li nga wax noonu ci Balla dama ko naw mun naa ne fait partie des seuls lutteurs yi nga xamante ne dala naan man jour combat bi lii laay def te jour combat bi su ñëwee loolu lay def. cest à li muy wax. jour face à face bi. Mm-hmm. da ngay xam ne daf ko gëm. et puis dafa nekk mbër ma nga xam ne day jaay day jaay combat. di jaay combat aussi non seulement day jaay combat mais fair play bi mu ci àndal c'est extraordinaire fugg bu muy àndal avant combat ak jour combat ba su la daanee am nañu si bëri ñoo xamante ne dañuy tàllal daw suñu la daanee mais moom à chaque fois damay gis day am lucidité pare combat am ci këti la ñëw accolade la xam nga wane la ne que lii bëri la woon quoi donc foofu tamit xolu Balla daf siy feeñ. Mhm. waaw di ngay xam ne tamit nitu neen la quoi. bu ñëwaatee sa mbër ëmb. waaw su ma ñëwaatee sa mbër ëmb cest mbërantaan bi man moo ma neex si moom. Mhm. maanaam. mais gars yow xam nga làmb da mbërantaan soo ma ko doon tekkil tey mooy lan. non mbërantaan c'est xam nga bon terme yooyu noonu bon man. suñu mag yi di quoi ay ñoom Paceno Ndiaye parce que Paceno Ndiaye dama koy tàmm di ko suivre man fépp ma gis vidéo Paceno Ndiaye mi wax si làmb dama koy déglu. ko. waaw waaw mi ngi moom moom dama koy déglu Pape Birame Ndiaye tamit dama koy déglu mais dama ko ba mu waxee woon ne da koy tegal chaise. waaw boobu dama mais moom tamit ku xam làmb la. tali bekkaay man paa bon ñooñu ñu si bëri ñu si suñuy wax ci làmb dama leen di seetaan. Mhm. ce qui fait que tey su ñuy décortiquer Eumeu Sène di wax mbërëmtaan maanaam tey ki nga xamante ne léppam bëri la. position bu mu nekkee ci làmb day bëri. foo laal ci yaram yi day bëri. foo laal ci yaram yi day bëri day xeex su nekkee ci suuf day bëri bëri kaw bëri ci suuf lépp position bu mu nekkee ci làmb day bëri. te loolu dafa am solo combat combat ak Gris Bordeaux bi nga koy seetaan lan nga lan nga doon yëg. waaw combat Gris Bordeaux ba mooy combat bi ma gën a neex si combat bi yëpp. ah bon parce que waaw combat boobu noonu ñun ñi en tant que supporter man dem naa benn instant dama naan yàlla na ci génn ak machine mais jom jum ci def. Mhm. billaahi ba mu ba mu rapporté combat boobu. donc moo tax mooy victoire bi gën a rëy franchement moo tax Eumeu Sène moom deselatuñ dara. waaw moom moom jox nañu lépp. deseelatul dara fan si quoi. <laughs> waaw deseelatul dara fan si waaw. tey soo ma doon wax lan yan qualité moo la gën a neex ci Eumeu loo may wax. waaw qualité bi ma neex ci Eumeu ci côté bëre maanaam euh, damay joxe juste benn exemple quoi. Uh-huh. en fait euh, combat bu mu njëkk bëri ak Balla Gaye xam nga combat bu njëkk bëri euh, c'est-à-dire xam na li mu war a def. Uh-huh. maanaam da ngay sentir ëmm su toogee ci làmb su toogee si diggu komba xam na lu mu war a def. daf lay daf muy indiwaat tamit ci premier combat ak Lac de Guiers mook Lac 2. ba muy ñëw xam na ne tànk bi la la war a dem jëli. te xam na ne foog mu ne ko coppee teg ko ci suuf pour génn ci combat bi donc su ñëwee agsi xam na ne lii laa war a def donc il est prêt il est concentré. kon li mu war a def daf koy préparer avant. da koy préparer loolu danga nga koy sentir quoi da ngay xam ne. kii fu mu taxaw xam na ne tey combat bi di laa si war a def même Balla Gaye période boobu noonu nekkoon na ci benn fukk boo xamante ne mais Balla gëm mais ëmb na ne da koy daan. ba ci deuxième combat bi ëmb xam na ne da koy daan. Mhm. Mhm. voilà donc loolu tey jii nii loolu bokk na li ma gën a neex ci ci ci ci ëmb ko mais aussi tamit humanité am quoi nit la foo day ree. Mhm, il est très drôle comédien moom est-ce que duñ ko jël mu jouer mais da ngay sentir ne même mbër yëpp ñu nekkee. doo sentir muy joué si affaire adversité à chaque fois mi ngi mi ngi kaf même keroog seen face à face. seen face à ngay sentir muy kaf di tooñ di tooñ Bombardier et ça c' est bien quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. tey euh, boo jàkkaarloo woon ak ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu Sène mel yaa ngi jàkkaarloo ko moom ci écran bi. Mm-hmm. woon ak moom am conseil boo koy jox ci làmb ji nan lay doon. waaw conseil bi may jox Eumeu je pense que tey jii nii euh, leen rek laa koy wax na xam ne lu mu ñu desaloon moom lu mu ñu desaloon comme lu mu ko diggee woon waa Pikine na leen. ne leen man euh, roi des arènes laa leen bëgg jox. Hmm. moom jox nañu lépp. na xam ne juste. jox bi ko ne am te sa te bu ko sa loxo laal quoi. waaw non en jox nañ ñu téye ko roi des arènes dégg nañ ko c'est vrai que Modou loo daan ko daanaat ko mais tey munu ma ne tey sax pour soxla naat ko beneen revanche ak moom ndaxte combat yu mag comme li ñuy wax combat jànk yëpp ëmb moo ko bëri. combat jànk yi combat yëpp ëmb moo ko bëri combat yi bëri yi gën a yu gën a ës. ñépp la bëreel. Mhm. c'est le seul. ku si nekk dañuy gis ne am na yenn mbëri yoo xamante ne am nañ bëriwuñu ak ñii bëriwuñu ak ñii mais ëmb bëri na ak ñëpp. ñëpp waaw franchement te loolu tey yaakaar naa ne soo xoolee ak carrière am franchement ne soo doon def classement am mbër yi gën a technique ëmb su nekkul pay nekk deux si l'histoire de l'arène. Mhm. franchement waaye techniquement dafa taxaw. tey soo am na loo moom moom laa koy leen rek laa koy wax na xam ne dafa lu ñu lépp li ci des bonus la. xaw ma nag ñaata at moo ko dese ci làmb ñaata at la war a encore bëri parce que pare que léegi yokk nañ affaire bi yem yematu 45 ans. Mhm. lu ñu ci mën a teg na xam ne euh, euh, bonus la. aussi tamit ma koy dégg benn affaire rek na na na na jàppale ñaari rakkam yi. Mhm. parce que tamit ñooñ samay mbër lañ. man yàlla fa def dama bëgg mbëru Pikine yi. ok waaw Boy Niang sama waay la. Mhm. le futur roi des arènes incha allah. Ah waaw moom. tamit dama ko bëgg. da nga annoncé fi nga féete non du question fi ma féete sax mais loolu mooy am loolu mooy loolu moo ah loolu mooy am incha allah loolu maa ko wax tey fii nii. xanaa da ngay gisaane non du ma gisaane affaire yooyu non damay fàttali dafa am benn année loolu yàgg na je pense j'étais avec euh, boobu boobu su ma juumul c'était en 2012. Mm-hmm. en 2012 laa wax ne Ama Baldé day nekk roi bureau bi ma doon liggéeyee ma toog sama ay jigéen ñu tudd ay ñoom soirée ñu toog di waxtaan ma ne leen kii boobu taa su ma juumul Ama mi ngi doon préparé combat ak Malick Niang. ok ma ne ko kii day nekk roi des arènes. gars ma non yow da wax lu la neex attends Ama daf kii ma li ma gis ci Ama kii il sera roi des arènes. Mhm. te gis naa confiance boobu noonu am na ko ci combat bi quoi. Uh-huh. franchement waaye. Uh-huh. jaajëf euh, Pod ba léegi rek ñu daal di wéyal waxtaan wi sa champion boobu di euh, euh, Eumeu Sène ci la continuer. xam na ne am na ko affice bu rëy bu koy xaar. waaw digganteem ak Lac de Guiers. Mm-hmm. bëre nan mu daan ko ñu bëriwaat match nul ñu war a bëriwaat. Mm-hmm. le 4 avril incha allah bu ci yàlla àndee euh, noo gisee boobu le combat moom Lac. waaw boobu combat lenn la gis nga Lac il est très dangereux. Ah waaw Lac du maye dara. te Lac combat bi dangay santir ni ne moo ko gën a sa titre roi des arènes si bakkan bi la ko teg parce que tey benn mbër moo ko déglu lu muñal muy ëmb te affaire boobu noonu. foog mu effacé ko foog mu dindi ko te. waaw mu dindi tâche bi nekk. tâche boobu noonu waaw foog mu dindi ko mais te dina pare combat bi gars yi lu ñu wax naan ay taxaw tey lay gën a mën a taxaw. waxtaan naag ménage barki démb suñu papa Mouhamed Ali. Mhm. ma ne ko yéen est-ce que combat bi xam na ne arène nationale lañ koy bëree buntu kër. Eumeu Sène la est-ce que loolu du du du du andi lu leen wàññi tuuti ci combat bi paa bi xam nga lu ma tontu. waaw ah. nee na ma combat bi su fekkonte ni bii buntu nekk Eumeu seen la ñun bu ñu bëree Eumeu dañ koy daal. <laughs> c'est am na problème. non Lac il est dangereux. il est dangereux mais lenn la Eumeu da nga xam Eumeu mën naa ne ah tey jii nii mbër yi ni ñu mënantee. Mhm. c'est que mbër yi ci biir làmb ji affaire boobu dafa am mbër yi dañu mënante. ëmb noonu la mënee ne ah bon c'est que ëmb dafa aay ci lakk. mais attention benn yoon la ko daan de. benn yoon la ko daan mais seen premier combat da nga xool mu demee combat boobu noonu lakk dafa daw ba rëcc. combat boobu lakk dafa daw ba rëcc. deuxième combat bi gis nga lu mu demee xam na ni ba muy ñëw la xam ne man leer na ma ne. ba muy ñëw xam na ne tànk bi lay jëli teg ko ci suuf mm-hmm. maanaam tey jii nii lu gën a jafe mooy lakk nga sàcc ko ëmb dafa xam naka laay sàccee lak moom rek moo ci xam naka la mën sàccee lak gis nga Boy ñaa la war ko daan mais xamul fan la koy sàccee Boy Niang xamul fan la koy sàccee te xamul lu muy def ba génn ci combat bi parce que wax nga ko lak dafa nekk mbër mu naqaree bëre parce que day liir combat te day taxaw xaar la non day taxaw cest à que dafa am ñu bëri ñu koy critiquer ci loolu mais loolu waruñu ko ci critiquer mooy fooram mooy fooram te sama ni ko bàyyi ah man loolu dama ko ciy naw mbër ñu ne c'est comme ci football am na ay entraîneurs yoo xam ne ay coach yoo xam ne seen seen tactique défense la yi seen tactique offensive la moom tey dafa am benn tactique am te ça marche parce que benn défaite la am ci arène bi moo ci gën a néew défaite gars yi champion yi ñuy gis ñi ñu si bëri daan nañ leen te lak gars yi dàq ñu ko bëree ëpp ñu ko doole tamit quoi tey boo yóbbu woon sa mbër Eumeu Sène euh, mu mel ni tey la combat bi arbitre soufflé na diggante Eumeu seen ak Lac de Guiers 2 tey boo yóbboon sa mbër boo boo mu des combat bi des deux minutes nga jàkkaarloo mbër. ban système de ban système nga koy jox pour mu bëree ak ak ak Lac de Guiers. da koy day jëliwaat tànk bi wala day xeex wala loo koy wax. da koy dóor mu daanu. Ah mu daanu rek la moo ci. dóor dóor mu daanu. mais attention Eumeu Lac da koo tiimu te mbër mu la tiimu pour nga dóor ko mu daanu du yomb waaw mais xam nga tey. Euh, tànk bi da koy sóor da da koy sóor bii paar ndax da koy jëloon da koy jëloon tànk bi da koy sóor bii paar bii paar su ñëwee di bëri lenn moom xam naa hmm? bëri jaxasoo ba kii boobu noonu fii ba suba man gëw ma ne fii ba suba gëw ma ne ëmb mën na si génn parce que lak du ko may dara saa du ko may portu du ko may flan du ko may poxotam du ko may dara loolu daf ma leer ëmb nañu ko dóora rek mu daan mu dóor ko mu wàcc. mu dóor ko rek mu wàcc. en tout cas suñu kanam la nekk ñu yónni yàgg te xam ne li ci kanam rawuti bët.